ata loolu euh, ñu euh, wax nag ci wàllum euh, bien-être mu ñu ne bien-être nag oustaz Pape Anne parce que tey moom lu mooy wax dama la koy seede yow yow mi nga xamante ni sama xarit nga sup sump la ñuy waxtaanee sump waaw sump yenn saa yi nga màcc ko mu weex yenn saa yi nga màcc ko mu saf suukar mm-hmm. moom la ñuy woowee dattier du désert euh, dattier du désert Dieynaba Seydou Ba plus connu sous le nom scientifique de balanites Aljibsia kenn Aljibsia ka dafa am na kenn mhm. koo xamante ne tchadien la mhm. euh, mi ngi nekk ci kaw moom daf ko sopp parce que foo savoir aussi fi nga xamante ne moom moo di Tchad aussi dañuy euh, bay li nga xamante ne moom moo di sump boobu donc comme ni nga ko waxee donc c'est un mhm. arbre boo xamante ne à usage alimentaire maa ngi leen ko doon wax sànq et médicinal juste pour diir que muy garab bi muy xob bi muy doom bi ak même bi ci biir doom bi li ci nekk yëpp dafa am njëriñ donc moom nañ leen di faram fàcceel ca Mali tamit dañ ko fay bay ñoom ñu ngi ko tuddee sengeen waa Tchad ñoom savon nañ koy koy wax euh, wala savon ñun fii ci ndakaaru ñu koy naan euh, sump te boo demee tamit Podor da nga ko fay fekk ndax bare na fa lool ndax dañ ko fay béyee lan moo ko waral parce que ci muccoode waaw je ah. pense en halpulaar donc euh, naka utax ñu ko di ko fa bay parce que dafa nekk garab boo xamante ne d'habitude ci ay zone yo xamante ne dafa wow donc foofu nañ koy béyee moo tax boo demee Podor aussi da nga ko fay fekk donc ci climat sahélien yi tout le temps daf fay fekk donc boo demee Égypte boo xamante ne c'est épineux maanaam dafa am ay jam-jam donc comme ni ma ko waxee feuilles yi ak doom yi mu nekk nag ay feuilles yoo xamante ne ba ci doom yi c'est très très très riche en calcium en potassium acide aminé ak li nga xamante ne moom la ñuy waxee fibre ndax sànq rek yow jeena ba bi ngay wax yaa ngi naan bu ko nit ki màccee sax parfois daf lay jox li nga xamante ne moom moo di biir bu daw lan moo koy waral fibre bi nga xamante ne moom moo ci nekk ñu koy retrouver parfois ci ay euh, tàndarma ak yéen baax baax yooyu complémentaire maanaam ci wàllum lekk bi euh, donc mu nekk xob yi nag la plupart la nit yi euh, ndekete dañ koy faral di ko euh, weer ba mu wow buñ ko weeree ba mu wow ñu togg ci ay xeetu sos yoo xamante ne dañ koy jëfandikoo fruit yi maanaam mooy doom bi nga xamante ne moom la ñu gën a xam ñun di ko màcc donc moom itam dafa am succès bu baax a baax te c'est très riche en vitamines moo taxoon nga gis nit yu bare dañ koy màcc te comme ni ma ko waxee woon sànq ci ndorteel bi fibre yi nekk ci biir dafa am ay ngëneel yoo xamante ne da koy def ci nit yi mais ñenn ñoo xamante ne dañ koy toj boo ko tojee nag mu am benn xeetu amande bu nekk ci biir boo xamante ne boo ko lawee wale euh, moom moo lay jox huile juste pour dire que euh, dafa am ay vertu yoo xamante ne c'est tu peux même pas imaginer Dieynaba donc dafa nekk une huile riche en vitamines ba pare comme niñ koy waxee huile boobu am na ñoo xamante ne dañ koy toggee mais ñun ci comme esthéticienne ci wàllu cosmétique on l'utilise beaucoup moo tax tubaab bi ñoom fu ñu xas ba dugg rek euh, xamal ni loolu am na njëriñ est très très très ñi ngi koy utiliser fële euh, nga xamante ne moom moo di Europe parce que dañ koy def ci seen euh, wàllu euh, cosmétique donc leneen liñ ci wax tamit mooy tige moo tax ma ne leen dafa nekk garab bu am solo tige yi mooy bant yi parce que ñu bare léeg-léeg dañ lay naan demal nga utiliser li nga xamante ne moom moo di socc sump bu fekkee da nga amee métitu bëñ même les aussi le disent parce que ça te une bonne hygiène dentaire boo ci jógee ba tey nag ñu wax nag li nga xamante ne moom di njëriñ yi donc fruit ni ma ko waxee comme tey dañ koy faram fàccee ndax bi yëpp dafa am njëriñ yi mhm. nee nañ que dañ ko recommander pour soxna yi nga xamante ne d'habitude dañuy nàmpal ñu bare dañuy naan dafa wex mais ndekete bu fekkee jigéen nga ngay am tout le temps problème mu am soow ñu ngi lay digal nga màcc bu baax li nga xamante ne moom moo di doomu sump bi wala leneen li ci am na ñoo xamante ne dañ koy xooj boo ko xoojee mu jox la un jus naturel boo xamante ne y a pas meilleur très riche en vitamines comme ni ma ko doon waxee donc boo koy faral di naan euh, dina booster bu baax li nga xamante ne moom moo di sa production euh, meew bi maanaam meew bi nga xamante moom ngay nàmpale nàmpale sa doom te ku xam meew bi yaay di nàmpalee doomam dafa am njëriñ ci liir bi nga xamante ne daf koy euh, nàmp donc buñ ci jógee ba tey jeena ba ñu dem ci li nga xamante ne moom moo di fibre yi waxoon nga ko parce que lépp loo xamante ne dafa amee métitu biir ak yooyu ay fruits wala ay légumes yoo xamante ne dafa amee fibre loolu dafay dimbali nit ki ci wàllu euh, problème digestif yi nga am maanaam les troubles digestifs donc feuilles aussi bu fekkee da nga bëgg a lâché wu donc il parle aussi des feuilles comme euh, doom bi ñoom ñaar ñëpp am nañ ay propriétés laxatives mooy ki nga xamante dafa seere bu fekkee da baxal xob yi naan ko dina la dimbali euh, ba nga xamante ne di nga lâché wala bu fekkee da nga ko màcc euh, baax na ci ñi nga xamante ne aussi tout le temps dañu amee ay problème de constipation wala ballonnement naka nag nga koy utiliser boo lekkee ba pare rek to mun nga jël sa ay quelques doom ñett ba juróom nga màcc ko boo ko màccee dina la dimbali wala nga baxal xob bi comme ni ma ko waxee woon naan ko ça tëddee mais nag sànq maa ngi leen di wax ci euh, huile bi nga xamante ne naka nañ def pour am ko mu nekk nag liggéey boo xamante ne dafa jafe parce que femme fii dañ koy def donc niñ koy defee c'est à pression manuelle am na benn xeetu machine boo xamante ne weñ la moom la ñuy jël doom yi dugal ko ci di ko wal c'est très difficile wala am na ay yeneen jigéen yoo xamante ne dañuy jël xeer ak benn weñ jël li nga xamante ne moom moo di doom boobu teg ko ci toj ko te léeg mu jural leen ay lorange ay gaañu gaañu mais quand dafa nekk nag huile boo xamante ne bés boo ko wal ko huile bi y a pas meilleur donc juste pour wax leen ni que euh, naka nga ko mën a euh, njëriñ yi ci nekk donc comme ni ma koy waxee déjà donc c'est anti euh, ñi nga ne dañu amee douleur articulaire conseillé nañ lañ ko ba pare c'est une huile boo xamante euh, c'est antimicrobien am na ñenn ñoo xamante ne seen yaram dafay am ay taches ay góom yooyu daf leen di faral souvent bu fekkee da nga am huile de sump boobu di ko ci def donc dina dindi li nga xamante ne moom moo di microbe bi te dina gaaw a wowal euh, sa góom yooyu ba pare c'est anti-inflammatoire juste pour dire et cicatrisant tellement que euh, dafa am ay njëriñ donc nit yi war nañ ko mën a di ko utiliser pour traiter seen wàllu peau ñun nag ci wàllu esthétique doon waxee ci cosmétique bu ñuy def ay soins du visage y a des yoo xamante ne elles ont des peaux acnéiques boo euh, bu ñu traité ba nga xamante picc bi wow na di utiliser xeetu huile yooyu di ko def te li ci gën a neex mooy ça laisse pas un film grasse boo ko def ba pare sa kanam niin non non c'est euh, le l'huile elle est très fluide jeena ba xam naa ci may après ngeen mun a xam euh, njëriñ yi ñi xam ne moom lañ ci wax ay ay bi ba <laughs> donc dafay préserver aussi li nga xamante moom moo di suñu hydratation euh, yaram donc sànq maa ngi leen di ko wax tubaab bi dañ koy jël léegi di ko def ci seen wàllu cosmétique di ko def ci ay savon y a des yoo xamante ne c'est à base d'huile de soufre c'est-à-dire y a yoo xamante ne dañ ko ci def tellement que dafa baax waaye yemul ci loolu ba tey nit ñi nga xamante ne aussi elles ont des cheveux très cassants euh, mm. karaw yi nga xamante ne seen fourche yi tamit dafay faral di damm euh, comme par exemple les personnes nappy peuvent l'utiliser parce que dafay hydrater bu baax a baax li nga xamante ne moom moo di seen cuir chevelure en quoi faisant des wala aussi nga diw ko ci guddi gi ci sa bopp boo ko diwoo mun nga mun nga musóoru mais boo xëyee le lendemain nga raxas ko ci vas voir l'effet de avant et de après amul euh, dara lu ko gën kon nag sump daal mu nekk benn fruit boo xam amul dara lu koy fay waaw li ko xale di waxee kon daal sump nag mu nekk doom boo xamante ne dafa am solo na ci nit yi gën a bàyyi xel parce que comme ni ñu koy waxee c'est des ressources naturelles yoo xamante ne jeena ba mi ngi fii mais encore exploiter euh, xeetu njëriñ yooyu xam nga parce que tellement dafa am ay valeur yu baax parce que comme boo leen ko déglu imaginer leen li ma leen wax muy garab bi muy muy xob bi muy bant bi mm. muy doom bi ba huile bi ci am lépp am solo donc ni ko tubaab bi nasaraan yi jël di ko utiliser di ko yóbbu kon ñun tamit ñi nga xamante ne ñi ngi nekk ci fii di yëngu ci wàllu ay produits naturels ak wàllum bio nañ ko jëfandikoo bu baax a baax parce que am na ay njëriñ bu ñu seetaan ñu di ko yóbbu te ñun mun nañ ko malheureusement c'est ça oustaz en fait li la jege dëgg dëgg doo doo xam valeur am mm. mais tant que soriwul ci ngay xam ba nga màttu parce que mag ñi dañ ko bëgg. dañ ko bëgg parce ñoo ñoom ñoo nekk ñoo dëkk ko bëggee euh, ñoom dañ ko faral waaw ñu ne rokkamu coode. Mm-hmm. voilà rokkamu rokkamu bu ñuy ñëw sax boo gisee ku jóge Podor di ñëw bu leen gënul si ah. indil la gowee indil na la suuf gàcce galaama suñu jigéen peut-être que ñun dëkku taax yi ñun ñoo koy xaw a négliger tuuti mais ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kaw gi ñoom xam nañ ko parce que même xob yi madoo di wax dañ koy dampe. waaw dañ koy faral voilà di dampe mu nekk tamit garab bu am solo la bu am solo tey boo ko doon développé fii ba suba. du du du jeex sànni rek mooy comme ni ma koy waxee. parce que travail bi dafa manuel dafa metti kon ñi nga xamante aussi am nañ ay moyens mun a dimbali ces femmes là ñuy liggéey en collaboration. jàppale leen ba nga xamante dinañ ko gën a mun a industrialiser ba ñoom ñu mun ko defar jàppale leen aussi ci paquetage yi comme ça ñoom ñu mun ci euh, ko defee comme ñu ko noonu lañ koy defee ci baobab bi noonu lañ koy defee ci buy bi Mado wax na ko léegi nag sump bi mm. ñu ko ci rek daal di def ñun ñu ngi xaar suñu huile yow nag seen huile dina ñëw mais yow dinaa la indil beneen huile boo xamante ne ak pile tudd xam naa huile bu lay saf ak bi moom baax na boobu <laughs> baax na ak <laughs> bi moom baax na yii Côte d'Ivoire <laughs> eh mes amis de la Côte d'Ivoire non non c'est bon non Mado baax na franchement y a rien rajouter ici franchement merci moom xam na ni waaw moo ngi def yëf yu codé nag. non non loolu da lay may yaram. yii ñoom waxuñu nag ah, huile boobu oustaz baaxul. yaa ngi leen a rajouté. da lay may yaram yaa ngi leen a rajouté daal. boo koy diw diw bi ngay amee yaram. day am yi nga xamante ni dafa am ay femmes yi nga xamante ni. ah da ngeen naan da ngeen di wax wax wax da koy leeral. parce que oustaz bu ngeen wax parce que da ngeen koy leeral fi mu toll wax acti bu leen bu ñu leen déggee ngeen def nii acti. dafa am part yoo xamante ne oustaz dafa am part sa yaram. sëñ Abdoulaye Gueye dama ko ruus ak ruus tamit mbokk téléspectateur yi ñu si taal. waaw waaw sama bu fekkee lu teggi lu da ngay sump ñuy bay garab garab la guy sax ñu koy wét sump mag ñi daan nañu wax nday raxas biir mm-hmm. waaw bukki bañ ne ko lu la feebar mu ni sump lu lay faj mu ni sump kon ca ngay xamee njëriñal sump waaw bukki bëggoon ko lool kon madoo indi am na solo trop na yàlla barkeel ko nii la nit dafay gëstu di gëstu lu leer waaw booy wax nit booy wax boo gëstoo dara mm-hmm. da koy gëstu expliquer nit ñi mu leer parce nit ñi dañoo am xel léegi waaw boo expliquer bu bii na leer gëstu ko ba mu leer mm-hmm. lu leerul bu ko expliquer waaw <laughs> oui man xam nga lu ñuy nuyoo Oustaz. Mm. Euh, euh, euh, yeewu leen dañ lay indi utile ak <laughs> dire que dañuy bég mais c'est en même temps dañ leen di jox information c'est juste pour vous dire que ni ñuy toog fii nii yëpp du rek dañuy xëy ñëw toog dañuy dem def un travail extraordinaire si ginnaaw. te loolu nag di leen ci remercier bu baax a baax Mado en tout cas félicitations ci gëstu bi ñoo ngi xaar nga indil ñu graine yooyu noonu nga wax nga wax ñu ah, njëriñ ñi nga xamante ne mi ci nekk ak huile boobu nga ko bëgg may ma bañ bëgguma boobu moom <laughs>